ils étaient ils étaient en quête de de de pouvoir bu ñuy wut pouvoir ñoom bu ñuy pouvoir je peux nommer même le le le premier ministre Ousmane Sonko il a fait une déclaration. Mhm. ñun yor nañu vidéo yi am na ñu ko fekkee woon n'est-ce pas. Mhm. muy muy muy muy dal ci kaw l'association des maires du Sénégal. oui mu dal seen kaw. oui ndax ils sont incapables. de de régler ce petit problème boo xam ne ni pour agents municipaux yi nga xam ne depuis ay weer ñu ngi grève ñoo mënuñu régler ce ce ce ce problème là moom en tant que. Euh, euh, candidat en tant boobu candidat candidat la woon nekk maire de Ziguinchor mu wax ne depuis ñaata weer liggéey yu maire yi ñu ngi grève te association euh, des des maire du Sénégal AMS. AMS mënuñu fexe ba ba ba taxaw ci pour que loolu saafara. ba créé woon sax bo bosu boppam maanaam. créé benn réseau des élus locaux mm. du Sénégal. moom moo ko créé boppam pour wax ne du bokk ci bële parce que ñële ils sont incapables mais ana ana bi mu réseau bi mu créé woon le le réel. Mm-hmm. mais ñooñu li ñu waxoon ba léegi moo fi nekk parce que xam nañ ne. c'est un droit légitime xeex nañ ko fi ñu ko war a xeexee waxtaan ni wax nañu li ñu ci war a wax ba dañu dañu war a signer li nga xam ne mooy acte bi nga xam ne mooy. signature loolu rek moo fi des. te léegi amatul prétexte amatul dara ñoom li ñu doon wax ci biti. bi ñu nekk bi ñuy wut nguur moo réalité moo nekk seen kanam actuellement nii il tarde le premier ministre il tarde à nous parce que xam nañ ñun aussi argumentaire yi ñu fa yóbbu parce que depuis le huit avril seen ñu ministre de tutelle waxoon ne dans les meilleurs délais les des délais brefs incha allah le premier ministre va nous recevoir le 18 ak léegi mu ngi bëgg a yàgg le 18 ak léegi def déclenché nañ fi décrété nañ fi de deux fois 120 heures te ñun du ñu tant que. recevoir ñu wax ñu ne seen seen lii kat paiement bi dina dugg si weer bii ñëw wala ñu wax ak ñun ay accords yu comme ni ko waaye waxee ne ñun kat fii de nii lañ toll lii lañ bëgg ñu waxtaane ko signature signé nañ leen document est-ce que doo leen suspendre ñu waxtaan mhm. mais bu loolu bu amul on va continuer la grève jusqu'à vraiment satisfaction